mbokk internet yu 2A TV nuyu leen jaajëfal leen bu baax a baax rafetlu ànd bi ak ñun euh, tey nag ñu dalal leen ci seen premier numéro sport sur 2 euh, nekk émission bu bees tax bu leen 2A andil lépp rek ngir euh, wan leen lépp li nga xamante ni si mu ngi fare ci wàllu sport bu Sénégal ak li nga xamante ni si moom mooy wàllum international aussi tey nag ci seen premier numéro ñu dalal ki nga xamante ni si moom mooy Papa Demba Ndior Papa Demba Ndior waaw euh, grand bi maa lay fay bu baax. Euh, tey ñu ñëw fii nii euh, seet si la bëgg waxtaan ak yow nga nekk footballeur dëkk fii nii ci Pikine est-ce que Papa Demba mën nga ñëwal ci kan mooy Papa ba njoor ci parcours bi ñu gën a mën a xam kan mooy papa. waaw grand bi nuyu naa la waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi seetaan waaw Papa Demba benn ndaw la xam nga débuté Pikine si Laayka moo formé. ACLK maa ngi koy nuyu bu baax xam nga lépp lu ma am rek moom moo ko def si man waaw jaar naa Africa Foot jaar naa B Sport fa mujjee nii nii ba nu may voyager Turquie. Ah, comme ni nga ko waxee ci say wax rek nga nekk ki nga xamante ni si ni démarré nga fii nii ci Sénégal ba yaa ngi mujj fii nga xamante ni si moom mooy euh, réewum Turquie euh, est-ce que mën nga ñu gën a ñëwal euh, avant ngay dem Turquie sa jaar-jaar fii nii ci Sénégal naka la demee woon ci wàllu sport bi. waaw sama jaar-jaar metti woon na trop commencement bi xam nga des fois nga nga bëgg ko la jàppale doo ko am affaire yooyu noonu waaw jaar naa fii si nawetaan yi taqale ko foofu noonu jaar naa Gunaas waaw jaar naa Cosaan jaar naa ASC Jokko bu yëmbal ma leen nuyu bu baax a baax a baax. Euh, comme ni nga ko waxee rek mu nekk li nga xamante ni lu am am solo la tey nga nekk fi nga xamante ni moom mooy Turquie euh, mën nga gën a ñëwalaat tamit sa demu Turquie lan moo ko undu woon. waaw sama demu Turki dama nekkoon fii di yëngal xam nga ñëpp naan papa Demba papa Demba xam nga essayé noonu cool yi bëri woon na trop xam nga sama ku si mel ni sama benn grand bu nekk fenn Italie Cheikh Sow ak Omar Sow mhm. na xam nga boo bi moom xajatul fii quoi si leen ma jëlee yóbbu ma test Casa ma dem foofu yëngalaat xam nga directeur technique bi Siaka Bodian chaque jour mu woo ko chaque guddi mu woo ko naka sa booy bi sa booy bi am na qualité xam nga noonu la début noonu laa def di ko def di ko def ba sama grand bi ne ah kii nag mënatul toog Sénégal xaar ñu yóbbu ko mu génn dëkk bi quoi noonu la demee. Euh, waaw mu mel nii jaajaaru Casa Sport boobu noonu Casa Sport ñaata at nga fa def euh, euh, parcours bi foofu naka la demee woon aussi foofu ci Casa. waaw Casa ay jours laa fa def rek que def ma fa 4 jours. Hmm. waaw yëngal test yi foofu noonu ñëpp di ma coow foofu. xam nga directeur technique bi affaire yooyu noonu ñëpp. ñoom ñoo tax sax ba affaire yi gën a yomb man. waaw ñu bëggoon ma yóbbu junior di ma surcalage senior après lu yàlla def ma waroon dem foofu noonu Covid bi ñëw loolu moo yàq affaire bi. ah loolu moo Covid bi daal moo la dem fi nga xamante ni moom mooy Casa. waaw moom ma teree dem Casa si noonu noonu si laa demee voyager Turquie. ah ci nga demee Turquie bi rek si laa demee Turquie. léegi bi nga demee Turquie euh, naka la demee affaire boobu noonu bi ngay dem est-ce que euh, nekkoon na li nga xamante ni si amoon nga fa foofa nekkoon comme club buy football wala da nga demoon noonu rek par waaw benn agent moo ma moo yóbbu foofu moo liggéeyante samay dossier ak lépp yónnee ma invitation après si laa demee ba ma demee nag toog naa lu yàgg toog naa ay 6 mois yooyu aw ma club xam nga après benn jour dama doon dem di entraîner di ñëw rek benn jour laa toog sama ndijaay bu naan Omar Sow xam nga ma koy nuyu bu baax a baax a baax moom moom jàpp na si bu baax a baax waaw ma toog nii rek mu wax ak benn agent agent bi na ko suba ñëwal Umraani Sport si la xëy dem. ba ma demee yëngal foofu noonu si benn jour lañ ma la ma président bi gis xam nga logé ma foofu si centre pro yi quoi noonu la demee. léegi foofu noonu yaa ngi évoluer ci euh, club euh, ba léegi nii wala. waaw waaw fa nekk fa nekk ba léegi mais maa ngi si U19 bi quoi di ñaan yàlla su ma delloo nii rek waaw monter si senior bi te gëm naa loolu parce que lu ma liggéey nii lu ma Abdou teg nii xam nga gëm naa ko quoi gëm naa ko bu baax a baax a baax. Euh, naka la euh, nga dem Turquie jóge fii nii euh, Sénégal ak ni mu mel nga dem fi nga xamante ni si moom mooy Turquie xamoo fa woon lu bëri nga nekk fa comme ni nga waxee def six mois amoo club ndax nga dundee loolu foofu metti woon na ci yow wala. waaw commencement bi metti woon na metti woon na bu baax a baax a baax problème adaptation. Mhm. ak lépp xam nga xam nga rek jour bu dem toog nii amoo club tamit loolu day xaw a metti waaw metti woon na trop mais dama ko doon muñ di ko muñ mooy loolu ba yàlla def lu gën quoi di si conseillé tamit sama mbokk joueurs yi xam nga ne leen football yombul dëkk boo munti dem commencement bi du ñëw rek neex foog mu metti ba pare waaw yow yaa koy muñ nag après nga mun a jëriñoo quoi. mu nekk euh, li nga xamante ni si lu am solo la ñoo ko déggandoo mu nekk ki nga xamante ni moom mooy Papa Demba Ndior euh, nekk joueur boo xamante ni si dafa jóge euh, fii nii ci Pikine nekk banlieue bu Dakar après nga dem mu dem fi nga xamante ni si moom mooy Turquie nekk fa di fa évoluer ndax yow da nga bokk ci joueur yi nga xamante ni si nii dañuy à chaque fois dañuy gis que nii da ngeen di jékki-jékki rek euh, fi ngeen di visionné rek mooy euh, réewu Europe yi foofu ngeen di bëgg di def est que jàppoo que ni waroon nga mën a xëy na euh, comme ni nga ko waxee nga desoon Casa Sport boobu noonu nga nekkoon avant ngay dem fi nga xamante ni moom mooy Turquie boobu gën a mën a évoluer. waaw loolu dëgg la Casa mënoon naa fa des parce que ñoom bëggoon nañ ma trop trop trop sax wax dëgg yàlla bëggoon nañ ma trop waaw mais instant noonu ah, waaw Casa instant noonu bëggoon nañ ma trop trop waaw ba ñoom buggoon nañ ma téye mais corona bi moo yaaxoon lépp xam nga après si mois bu stop rek si la voyage xam nga tamit loolu mbirum mbirum suñu boroom la quoi moo tax. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee rek nga nekk fi nga xamante ni si moom mooy euh, euh, Turquie nga nekk fa comme ni nga ko waxee rek début bi métti woon lool. Mm. ñu gis jékki-jékki gis Pape Demba fii nii muy entraîné fii nii lan moo ñëw bi Sénégal fii nii ak entraînement yu métti yi nga xamante ni si ñu ngi koy gis nga koy def. waaw gars yu bëri nag loolu moo leen jaaxal quoi le fait que ma jógee Turquie ñëw fii nii xam nga jaaxal na ñu bëri ba si ñu si bëri da leen dañ koy laajte quoi boobu la la war a def fii. mais loolu ay code la quoi dañ koy dañ koy def code moo tax lu tax ñu ñëw fii di entraîner fay code su xam nga mu ñuy entraîner ay code la quoi ci kanam tuuti tuuti tuuti nit ñi dinañ ci xam dara comprendre nga xam nga Sénégal moom dafa yéeme quoi boo ñëwee rek wax. Mhm. xam nga day am nu muy demee après moo tax affaire yi des fois dañ ciy def code rek mais ci kanam tuuti tuuti rek xam nga gars yi dinañ dinañ xam lan moo tax ma ñëw Sénégal voilà. dinañ xam la moo tax nga ñëw Sénégal kon hmm. ñu ngi yaa waaj dellu bi wala. waaw ñooy waaj bu baax moo tax ñu ñëw fii nii di rey suñu bopp nii. Hmm. Hmm, ñooy waaj bu baax. donc boo delluwaatee fi nga xamante ni si moom mooy turki xëy na dinañ xaarandi ki nga xamante ni si moom mooy euh, Pape Demba ci ay club yu mag. waaw bu baax a baax. nañ ma xaar bu baax a baax. kon daal loolu mën nañ moo jàpp ni moom mën mën nañ ñi moo tax nga ñëw fi nga xamante ni si moom mooy Sénégal pour ay préparation ak yu yu demee noonu si bokk na lu tax ma ñëw Sénégal bokk na si bu baax a baax mhm. waaw na ma gars yi ñaanal rek incha allah li si kanam réew lu bët foofu dama la fi am benn question bu solo mooy la parce dañuy gis que ni en préparation jours yu bëri dañuy jógee fi nga xam bu nekkee ci réewu Europe hmm. dañuy jógee foofu ñëw fii lu ci mel ni vacances préparé wu pour jàllu foofu préparation bi da ngeen ko farul mën a am wala nu mu fa dem na ba tax ngeen ñëw fii pour euh, euh, yokk seen ay entraînement si si non préparation bi foofu ak fii benn la man lu may daj nii nii nii si Abdou hmm. lu may daj nii daanu ma ko daj Turquie xalaatu ma sax daanu ma ko daj mais fii moo gën a metti fuuf waaw fii gars yi duñ la yërëm quoi waaw may nuyu sama kër si Abdou bu baax a baax mu ngi may teg si code di ma conseiller xam nga di def si man loo xamante ne dama ko manqué woon waaw. ban expérience war nga ñu mën a wax que ni moom utoon fi nga xamante foofu nga demee Turquie ak sportif yi xamante ne ñu ngi fa ñàkkul ay Sénégalais yu fa nekk ak yu demee noonu. Hmm, waaw Turquie moom dund naa fa expérience bu rey le fait que ma toog 6 mois rek aw ma club xam nga loolu rek expérience jàngat na jàngat naa si lu bëree bëri bëri expérience la si man première. deuxième waa joueurs yu may gis di yeewandoo ak ñoom di xam nga di leen gis chaque jour di dem match yi di seetaan loolu tamit may na benn expérience loolu tax sax ma may gën a rey sama bopp parce que gis naa li ñuy fubale ak rythme bu ñuy daw xam nga su ma xëyee damay gën a rey sama bopp loolu loolu tamit expérience bu mag la si man ma gis fa tamit ay Mbaye Diagne xam nga ay Kenny Basaksir xam nga ay Famara Diédhiou Khadim Roxe kii Rasoul ñoom ñëpp gis naa leen foofu noonu ñuy ma gis lu ñuy def ñuy def liggéey bu nice foofu waaw loolu tamit daf may gën a yokk góorlu waaw expérience bu mag la si man ma leen di gis nii xam nga dafa may gën a yokk jox euh, euh, merci beaucoup nga jóge fi nga xamante ni si mooy Turquie ñëwaat euh, vacances affaire bi nag nga ko dundaatee sa ñëwaat fii nii dakaar nekkaat fi entraînement yeeg yu demee noonu waaw affaire moom nu ñu koy dundee mooy neex rek xam nga nit nekk boo señoon boo voyagé di nga ñibbisiwaat xool famille xam nga xarit yi andi jàmm yi xam nga loolu rek dafa neex quoi nga ñëwaat tamit li nga manqué woon ñu koy def si yow fayal la coach et tout ku si mel ni Cheikh Sow maa ngi koy gërëm bu baax a baax ak Omar Sow xam nga gars yi si jàpp yëpp ay jeegoo xam nga ay Issa bu Dias ay Baba Fall ay Minti Fall xam nga Marème Fall ñoo ñëpp dañ si jàpp quoi waaw Euh, nga jógee euh, Sénégal am nga fi jaar-jaar bu ama am solo wàllu sport naka nga gisee sport Sénégal euh, football local bi fii nii par rapport comparé ak li nga xamante ni si moom mooy football européen bi. waaw football local bi mooy dox mooy dox bu baax mais des na quoi par rapport ak football Europe waaw fii normalement. football Sénégal joueurs yi war nañ mun a am oto ku nekk di dawal sa oto bopp war nañ ko gën a mën a améliorer quoi ku nekk di dawal oto di fay joueurs yi salaire yu baax teg ci bon condition européen loolu rek la ñu rawee quoi ñu gën a defaraat championnat bi xam nga bàyyi violence bi yëpp waaw loolu laay wax quoi. Euh, merci beaucoup nga nekk tamit euh, jeune footballeur euh, ñu gis jamono jii nii Arabie Saoudite mu nekk li nga xamante ni si nii ñu gis fa joueurs yu bari daw wutali fa. Mm-hmm. ba laal ñi nga xamante ne ñooy mooy joueurs sénégalais yi. Euh, ku ci mel ni euh, Kalidou Koulibaly wala ku ci mel ni Edouard Mendy. Mhm. Euh, ñoom ñu dem signé foofu ñu bari jàpp ne dafa teel yow ban jàngat nga am ci ñoom contrat bu mu signé fële nga xamante ni moom mooy Arabie Saoudite. waaw mais xam nga football moom dafa xaw a doy waar quoi ñooñu jamono ji amatul lu ñu mën a prouver lu ñuy prouver prouver nañ ko ba pare jël nañ coupe d'Afrique xam nga dem nañ ay Ligue des champions jël nañ ay Ligue des lu nekk def nañ ko comprendre nii dañuy dem uti xaalis rek waaw pour famille beeg yooyu noonu mais. ñoom moom lu ñuy am am nañ ko ba pare comprendre nga man moom d'accord naa si jour bu am 32 ans 33 ans loolu moom c'est trop normal waaw man loolu laa gis quoi. mais su jàppoo ni ku ci mel ni Edouard Mendy ak rythme bi mu nekkoon jamono ji jékki-jékki rek dem Arabie Saoudite ñu bari jàpp ni Arabie Saoudite ah, dañ fa dem pour fin carrière moom mu tëm fa nii nii est-ce que jàppoon tamit xaw na teel ci moom. non foo passage la rek daa dem am lu mu Edouard ni góol bu mag la fii si Sénégal amul ku ko mën même Europe bi sax amul góol bu ko mën waaw day dem am lu mu fay jëlee rek ñëwaat day ñëwaat Europe de day ñëwaat dans un an wala deux ans day ñëwaat incha allah. Euh, bu nga ko gisee noonu moom mooy euh, coach su Abdou coach Abdou nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay jaar bu baax du nuyu ñu ñuy ñu ñuy ñëpp maa ah, di nuyu waa 2STV bi vraiment di di am contentement bu baax ci ci ñëw bi ngeen ñëw fii. Hmm. comme ni ñu ko waxee rek tey ñu ñëw euh, seet si ki nga xamante ni si moom mooy Papa Demba Ndiokh nekk euh, jeune footballeur tey bu ñu ñëwee ñu fekk la yow yaay entraîné ki nga xamante ni si moom mooy euh, Papa Demba est-ce que mën nga ñu temps bi nga passé ak moom un jeune footballeur boo xamante ni si jógee na Turquie ñëw fii en préparation ay quelques mots yi xamante ni di ko mën a wax ci ci moom. waaw tout d'abord ah dama koy nuyuwaat bu baax parce que Pape Demba moom c'est un joueur boo xam ni xale la. il a de l'avenir et puis neex na liggéeyal quoi waaw ah, vraiment bi mu ñëwee ba léegi aussi ponctuel na mi ngi ñëw heure mi ngi entraîné et il est entraîné aussi de de de progresser donc voilà lu ma def lu dul di ko jàppale rek parce que jeune joueur moom donc dafa war di projet euh, euh, progresser chaque jour donc moom aussi ci logique boobu la nekk donc mi ngi mi ngi cay entraînement am et on espère que d'ici peu de temps peut-être ñun li ñu xaar ci moom danañ ko dinañ ko gis quoi. Euh, merci euh, beaucoup comme ni nga ko waxee rek li ñuy xaar ci moom di ngeen ko di nga ko gis euh, très mm. prochainement mu nekk ki nga xamante ne si benn jour la comme ni nga ko waxee rek a jóge Sénégal dem Turquie bi mu fiy jógee amoon na ay club est-ce que jàppoo que ni waroon na mën a gën a euh, progresser fii ci euh, euh, Sénégal ba pare comme ni ñu ko waxee d'habitude jeunes joueurs Sénégal yëpp seen gis-gis mooy dem fi nga xamante ni si nii moom mooy réew européen yi def li nga xamante ni si moom mooy seen seen football gisoo ni des fois dañuy def ay choix yu teel yooyu noonu voilà. waaw xam nga football Sénégal moom comme ni may wax rek Afrique ku ko xam-xam ni yàgg na am talent. Mm-hmm. ce fait que mooy que en en Europe à l'étranger juste que. progression bi foofu lay gën a gaawee parce que boo xoolee infrastructure ak matériel yi foofu la ëppee mais talent bi mi ngi fii ah, donc moom aussi bi muy jógee di dem foofu il était un peu jeune donc wàññiwul ci progression parce que fële aussi même boo fa nekkee di nga di nga di nga di nga progresser parce que matériel bi foofu la ëppee donc football bi foofu la gën a développé que qu'en Afrique ce fait que aussi ici moom bi mu ñëwee ba léegi aussi ci continuité boobu la nekk donc man pour man amul une très grande différence que le fait nga jóge fii teel da jóge fii dem fële dafay dépendre ci progression bi rek te donc bu ñu waxee progression daanaka Europe la gën a la gën a gaawee parce que infrastructure yi foofu la ñu nekk donc football bi ñoom ñoo ko gën a jox ak que que Afrique bien vrai que Afrique mi ngi commencé di développer nànk-nànk mais pour man un jeune joueur quitté fii Sénégal dem à l'étranger man pour man c'est mooy moo sax gën wallaahi soo amee possibilité bi moo moo moo moo moo ci nga ëppee change quoi. en tant que coach. Euh, loolu ban euh, njeexital la mën a am ci li nga xamante ni moom mooy football local bu bu bu Sénégal euh, bu ñu gisee que ni booy bu ñu amee talent rek ñun joueurs dañuy daal di dem fi nga xamante ni si moom mooy réew kii ban njeexital la mën a am ci football Sénégal. waa donc xam nga fii booy boo fi gis aussi muy football. Mhm. rêve mooy devenir un footballeur professionnel. Mhm. te donc boo bëggee li football bi di fay à l'étranger fay ko en Afrique donc ñoom aussi seen xel yëpp donc voyager moo ci nekk. Mhm. de ce fait que bu ñu nekkee fii quelque temps dañuy dañuy bëgg coûte que coûte génn dem dem dem dem dem à l'étranger naa la bu fekkee am nga possibilité bi moo gën ci xale ah teel dem Europe génn progrès yi jéem a jéem a jéem a xool noo réussir ci football. de ce fait que aussi gis nga Afrique dinaa la benn Afrique affaire c'est-à-dire Afrique yàgg na am talent mais infrastructure yi nekk en Europe ak euh, organisation bi nekk en Europe ci côté football nekkul Afrique moo tax tout le temps booy loolu moo da ngay xool Sénégal même dans les pays sous région sax en Afrique seen championnat moo gën a développé championnat Sénégal parce que ñoom ñoo ëpp lu ñuy fay de ce fait que booy ñi ngi quitté fii sax di dem ay ci sous région bi comme ay Tanzanie ay Maroc genre yenn dëkk yi kon ce qui leur vie donc pourquoi pas bu ñu amee opportunité du ñu dem dem dem dem dem dem dem à l'étranger ko def ba pare aussi ñi le fait que li ñuy am souvent problème intégration lay nekk cest à que mooy condition yi ñuy fekk fële duñ ko am fii mais si on réussit à avoir ces conditions ici au Sénégal donc ñoom bu ñu demee fële ils vont vite adapter da ngay xool ay joueurs yu jógee génération foot ak joueurs yu jógee jàmbaar bu ñu demee adaptation bi da doon lu compliqué ci ñoom footballeur africain yi problème adaptation rek la ñu am bu ñu jógee fi dem à à l'étranger donc bu ñu amee les conditions yi ñu am foofu bu ñu ko amee fii au Sénégal bu ñu demee foofu ils vont vite adhérer quoi. Euh, en tant que coach ba tey euh, comme ni ñu koy gisee euh, ci club yi nga xamante ni si ñu ngi fii nii ci biir Sénégal parce que comme ni ngeen ko waxee rek sport 2A dafa nekk li nga xamante ni si dafay gën a focaliser wu ci li nga xamante ni moom mooy football local bi ñu gis que ni yenn club yi dañuy am sax ay problème pour li nga xamante ni si fay seen ay ay joueurs ba des fois dañuy joueurs dañuy def sax boycotté li nga xamante ni si moom mooy les entraînements Euh, loolu ban euh, problème euh, lan nga jàngat nga ci am ak ban kii la mën a am njeexital ci football bi nga xam moom mooy football local bi. waaw tout d'abord man li may wax je pense que je pense que yàgg naa ko yàgg naa ko wax ah mooy que il faut que le football local état dugal ci dugal ci dugal ci loxoom. parce que je peux pas imaginer que tey boo xoolee dans les autres pays état bi dañuy imposer les sponsors à ce que ñu dugal seen loxo ci football bi mais mm-hmm. pourquoi pas au Sénégal. parce que dangay gis un joueur de football buy am masse salariale cent cinquante mille cent cinquante mille mais c'est rien boo ci fayee location boo ci boo ci courant donc dafay jeex mënu leen mënu munu leen satisfaire ci dara il faut que l'État aussi euh, benn politique sportive boo xam ni mooy tax ñi nga xamante ni ñoo di sponsors yi ñëw dugal seen loxo ci championnat bi tey bu ñu jëloon benn usine bu nekk wala benn société bu nekk jox ko benn équipe mu sponsorisé ko donc subvention bi ñu am foofu dina mën a am lu bari loo xam ne dina leen amoon njëriñ que joueurs yi mën a am masse salariale baax di mën a satisfaire seen bopp di satisfaire aussi seen ay besoins ak seen famille c'est-à-dire que il faut que football bi toll foofu ba pare aussi il faut que ñu jógee aussi ci amateurisme dem ci professionnalisme parce que boo xoolee yenn dëkk yi ñu ngi commencé développer seen football mais c'est juste de la communication ak organisation boobu lañu la ñu teg pour seen football mën tey boo demee ba sunu ay jour di jógee fii di dem Tanzanie te Sénégal Tanzanie bu ñu daje woon nag Coupe d'Afrique niveau yi duñu doon benn y a un problème te suñu fay ko ay millions là-bas donc te Sénégal ils n'ont même pas capable de veiller un million par jour mais y a un problème te bu ñu xoolee notre équipe nationale mais les niveaux ne même ne sont même pas les donc ce qui veut dire que un problème sur le plan euh, organisationnel de côté l'État manque d'accompagnement bi aussi am na ci il faut que aussi ça ñëw dugal ci loxoom ci football bi pour que le football local puisse beaucoup développer quoi. sur le côté de la de la violence euh, parce que dañuy noter violence bu bari ci li nga moom mooy euh, football bi aussi. non fu violence mi ngi ci lépp mi ngi ci football bi mi ngi ci làmb ji mi ngi ci lépp violence moom waaw mi ngi ci mi ngi ci lépp football ak sport ak violence moom ñoo ànd waaw parce que même en Europe sax des fois tu vois certains matchs daal ji à am violence violence moom mi ngi ci lépp mais juste que di leen sensibiliser rek ñoo xam ne violence moom doxalul doxalu sport ñu delloo ci xel it xam ne football lu ne am na fi ah na donc na nañu nañu nañu dal rek xam ni mais violence sport moom daanaka. voilà ñoo ñoo ñoo ànd partout dans le monde am na violence en Europe partout. Euh, merci beaucoup coach ci intervention bi dañ lay bàyyi rek nga tàggoo mbokku internet yu 2A TV. waaw tout d'abord maa ngi waat ñëpp di am contentement ci euh, ci ci invitation bi le fait ngeen ñëw fii euh, di di wax tuuti benn message rek bu ngeen ma ko permetre donc fii ngeen di gis ni benn benn centre la boo xam ni pour pour pour se préparer. tey bu fekkee danga nekk un joueur de football wala nga nekk un athlète nga bëgg ñu préparer sur le plan athlétique donc da ngay ñëw fii nga contacter ñu via AB coaching Facebook euh, Instagram ak ak ak ak TikTok ci numéro 78 458 31 79 donc boo ñëwee fii dañ la préparer sur le plan athlétique par rapport ak à tes ba ba nga ba nga ba nga réussir à se à se progresser donc di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di di di di sant ñëpp encore di di di sant fii fils Pape Demba. merci beaucoup. Euh, Pape Demba comme ni ko si euh, waxee rek euh, waxtaan bi amoon solo trop sa ce fut un grand plaisir ñu fekk si la fii nii ci Pikine waxtaan ak yow nga wax ñu si sa parcours et tout dañ lay bàyyi rek ñàkkul que ni xëy na am na ñoo xamante ni si jàpp nañ ci pap Demba ba Pape Demba accès fi mu nekk nii. waaw li nga wax dëgg la waaw maa ngi sant sama coach mi toog waaw moom moo tàggat fii nii xam nga. moo mooy teg coono yu métti métti métti xam nga mais loolu jàmbaar rek lañ koy teg quoi te gis naa progression bi gis naa entraînement yi xam nga lépp a ñëw li ma xam naa ni bu ma delloo moom xam nga leneen la ñuy wax. waaw ah, affaire yi moom am nañu ñu si jàpp ba ba ma yegg si fii ku si mel ni Issa moo nekk jas xam nga kooku moom ba kenn nekkule fii nii moom moo fi njëkk a nekk xam nga di doon def sa samay affaire xaalis bu bëri wax dëgg yàlla kooku moo aw ma fayam maa koy nuyu bu baax. ku si mel ni Cheikh Sow kooku moom mention spéciale kooku moom xam nga ak Omar Sow turki xam nga gars yi moom ñoo may teg si code ñooy génne seen xaalis si def xam nga ñoo siy jàpp bu baax ñooñu moom yàlla laa leen di bayal quoi ku si mel ni Baba Fall xam nga yàgg na jàpp si affaire yi ku si mel ni Minti Fall ay Marème Fall xam nga. bëri na quoi ku si mel ni jéego jéego bu Africa Foot maa ngi koy bége bu baax moom tamit xam nga mooy sonn samay samay mbir bu baax a baax. waaw du nuyu famille bi sama famille ñoom papa waa kër Ndiorène xam nga sama bàjjan yi ñëpp maa leen nuyu waa euh, famille Sowen ñëpp maa leen nuyu tamit xam nga du nuyu waa OMC e waa naturel gang ak waa oxlu bi waaw di leen bégge bu baax a baax a baax Euh, comme euh, ni ngeen euh, ko gisee rek euh, ce fut un grand plaisir ñu fekk si ki nga xamante ni si moom mooy Papa Demba Papa Demba rek dañ lay bàyyi nga daal nga daal di tàggoo ak mbokk 2A TV yi. waaw yéen maa leen di bu baax waa 2A TV waaw di leen ñaanal seen sit bi dem ba nekk télé. waaw télé yu mag a mag a mag vraiment loolu laa leen di ñaanal du bëgg àdduna bi yëpp waaw di wax waa Sénégal nañ ma xaar quoi. équipe nationale bi lépp nañ ma xaar incha allah loolu laay tàggatoo quoi. Euh, merci beaucoup comme ni ngeen ko gisee ce fut un grand plaisir ñu fekk si ki nga xamante ni si moom mooy papa Demba Ndior ak euh, coach euh, fii nii ci Pikine doon waxtaan ak ki nga xamante ni si moom mooy papa Demba mu nekk un jeune joueur sénégalais di évoluer fële ca Turquie ñëwoon fi en vacances nag en préparation ñu ñëwoon jël si ko si sport sur 2A nekk li nga xamante ni si nii émission la bu bees tax 2A TV daal di leen koy la di waxtaan lépp li nga xamante ni si nii concerné na suñu football local ak. ak euh, football bi nga xamante ni si euh, c'est au niveau international lu leen fi andi la euh, bépp joueur boo xamante si nii wala bépp sportif boo xamante si nii mi ngi fii nii dëkk Sénégal di fi évoluer wala mu évoluer fi nga xamante si mooy au niveau international ñu waxtaan ak moom ci carrière waxtaan ak moom ci football national bi ak international tey nag premier numéro bi dañ doon dalal Papa Demba Ndiokh fekk ko fii nii ci Pikine am ak moom ak a a di leen jox euh, dig daje très prochainement incha allah.